ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ca Éthiopie force tigrayenne yi daal dinañ xamle ne daal dinañ moytu ab attaque bu l'armée érythréenne si ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai bii ñu génn mu nekk nag xeexoo bu gën a am doole depuis bi ñu déclaré cessez le ba tey ci ay message yu mu posté ci Twitter. Getachew Reda di conseiller bu président bu Tigré daal dina xamle ne ay contre offensive yu bëri daal dina tax ay troupes érythréennes yu bari daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw bu ñu jéggee frontière ba seen jouru fête nationale. ca république démocratique bu Congo ay manifestation yu bëri ñoo amoon. yu ñu jëmale ci Kigali manifestation yi nag ñoo ngi commencé woon depuis ca altine gii foofee ca réew ma autorité yee nag daal dinañ convoqué ambassadeur bu Rwanda démb ci talaata gi ngir mu daal di leen indil ay leeral ci tuuma biñ leen teg ne dañuy jàppale rebelle yu m yi waxtaan nag bi doxoon ci diggante gouvernement beeg ambassadeur rwandais boobee nag yàggul ndaxte ci diiru fukki simili dong la daal di duré. ñu daal di jeexale xibaar bitim réew yi ak campagne yi nga xamante ne daal dina door foofee ca réew mu France ngir ñu mën a waajal élection législative yi. droite nag moom mu ngi am yaakaar bu baax kër yi dina yëkkati ko ci élection yooyee. ñub nag daal dina dugg ci bataay bi ngir mën a jàmmaarloo ak majorité présidentielle bi partie bu nekk nag daal dina samp ay ndëndëm leader bu lf di Jean-Luc Mélenchon dina amal ab meeting ci àllarba bi foofee ca Paris ak alliance ñupp à seen campagne yooye nag ci liñ koy gën a jëmale mooy yokkute njëg yi nga xamante ne daf leen laal lool mbokk yi tey lii moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew